voilà cher intondo ñu ngi fii toujours ci King Fahd di xaar li nga xam ne nag moom mooy trophée yi ñu fekk fi suñu sœur muy Alima Alima Coppet neex deret macha allah donc ñu ngi lay nuyu bu baax. fay naa leen bu baax a baax macha allah. dafa rafet déjà marché boo ko ak sa maquillage ak. Euh, non non xeebu ma ko déedéet <laughs> déedéet. Béri jëlal ma suuri Alima bi. bay tooñ. donc euh, Alima tey ñu ñu fekk la fi ñu bëggoon xam déjà sa teewaay ndax da nga entreprise bu bokk ci ñu nominé wala dañ la invité wala da ànd ak koo xam ne dañ ko nominé. waaw dama ànd ak ñu nominé muy sama papa Mamadou Yatta Saay moom laa àndal ñu nominé ko ñu ñëw dooleel ko rek ñëw gunge si ko mu jël si pris bi ñu daal di ñibbi. ah bon kon loolu nga gis. da ko mérité du chance mérite la da ko fay liggéey. laay lu baree baree baree bare nit ku baax nit ku social nit ku mën dimbali nit nit ku mën a jàppale nit te du feeñ la muy def ci ombre moo ëpp la muy def ci biti koo koy Mamadou Yatta Saay Mamadou Marème son excellence kenn du moom solution pourquoi loolu gis nañ ngeen un jeune une solution pourquoi loolu waaw maanaam un jeune une solution mooy ndaw yi nañu ndaw bu nekk rek mu util la pexe ndaw bu ne rek mu roof la pexe <laughs> waaw kese nag ndaw benn ndaw benn pexe solution dafa parce que xale yi temps yi yoonu Nicaragua bi dafa métti kër yi wéet ñu dëkk bi wéet na dafa baax nag dafay jot nag sax nag xale yi toog seen dëkk liggéey tekki ci biir dëkk bi dimbali seen i njaboot ndax tukki dafa métti rawatina États-Unis balaa nga am kayit chance la yàlla moo koy def lu ne mën naa xew sa ginnaaw waaye boo fi toogee di liggéey bàyyi xel njaboot gi day tax day am solo. nag nga téye TFM di ci animé xam euh, loolu dañu ko dencaloon di xaar temps wala nu mu demee. waaw xam nga comme ni ma leen koy waxee da rek tout le temps Bouba Ndour moom dafay xam dafa am day xam rek nit ki lu mën mu di la ko sant moog Ndiaga macha allah donc euh, téyewuma sax TFM en mai ndax TFM macha ay ndaanaan dong nga fa nekk nag ku ci nekk rek ci wàllu bi nga nekk yaa ngi koy doxal ba mu mat waaye xam nga rek ambiance dafa nekk ci man <laughs> ku ma miin xam ma xam ne man dama musical dama bëgg ambiance. ba tax na nag buñ ma woowee ci ambiance day neex. comme yow da nga bëgg ambiance kon instant bi yaa ngi déglu li nga xam ne moom mooy clash yaa ngi déglu rab bi macha ma macha allah. ñu ngi neexal aar waa. nan la gisee parce ñu bëri tout dañ naan dëkk bi dafa calme mais à chaque fois bu ñu ñëwee rek dangay gis day mel ni Sénégal da doon nelaw yeewu nan nga gisee clash bi aara ak ngaaka mais dafa neex nañ ko def dafa neex yoon la voilà nañ clashante c'est c'est c'est c'est le Sénégal qui dañuy ambiance rek féexal xol yi ñëpp beeg ñëpp kontaan loolu du dara daf na neex rek mais nañ ko teg rek si yoon ñu bëri loolu la ñu nañ dafa neex mais nañ ko teg si day am ay saaga ak yooyu donc doo ko mën a toog di ko seetaan ak sa yaay. wala ak sa papa. Mm. tey en tant que tamit porteur de voix peut boo amoon looy lancé si côté boobu. waaw ñu ñu teg si yoon rek ñoom xam nañ li ñuy def de toute façon ndax rab moom dafa am ay chartes yu muy laaj ñoom xam nañ lu ñuy def mais nañ ko gën a rafetal rek. boo boole entrepreneuriat moo moo ñu fi euh, gisee aussi ñu ngi gis jigéen entrepreneuriat euh, féminin bi mu ngi mu ngi jóg bu baax ñu ngi gis xale jigéen ñi ñii ñu ngi jaay diw ah ñii ñu ngi jaay saabu ñii tey tijji nañ ay boutique di jaay yére benn xale bu jigéen toogatu nan nga gisee Sénégal nu ñu jëlee bi ku nekk bëgg a am loo moom a sa bopp. pardon mais euh, kontaan. parce que nag ñaari loxoy tàkk tubéy waaye ñaari loxoy tàkk sër te pourtant jigéen ñi yàgg nañoo yëngu xëy na réseaux sociaux yee ko fasal nii rek mais jigéen ñu bëri ñoo yor kër yi macha allah ñu nekk ay jàmbaar di liggéey nañ gën a góorgóorlu rek góor baax na jigéen baax na. nañ ci gën a góorgóorlu gën a jàpp te xam ne euh, liggéey rek ni ma ko waxee sànq rek liggéey rek ay tax yàlla teral la leneen loo def leneen fekk la ci. dañ la fekk ci kii donc dañuy tëj rek ak li nga xam ne moom mooy mois d' octobre xam nga ne bu ñu waxee mois d' octobre mënuñu ko jeexal te waxuñu li nga xam ne moom mooy cancer du sein ak cancer du col de l'utérus donc Euh, Guigui si boppam sax mu ngi doon def li nga xam ne moom mooy dépistage gratuit ci 14 euh, bi ñu génn nii donc muy feebar boo xam ne sonal na jigéen ñu ci feebar boobu ak booy ñaaxalee dem dépisté wu dem defi ji dépistage xool parce que wenn nag mooy jigéen wax dëgg yàlla te jigéen ñëpp euh, dañoo war a dem dépisté wu xooli ji ba xam amuñu feebar bi te aussi kër docteur ak gouvernement bi war na yombal li nga xam ne mooy lig mooy garab yi pour ñi nga xam ne am nañu cancer garab yi ñu defal leen ko gratuit ñu mën a faju mën leen a jàppale man leen ñu mën a am assistance parce que foog ñu am benn benn assistance boo xam ne euh, ñu assister ñi nga xam ne ñoo feebar ba ñu mën leen a faj mu bañ a yegg ci benn niveau bi te jigéeni aussi bu ñu amee ñu sentir ay bul ci seen ween ak yooyu nañ teel a dem kër docteur day teel a xool ñu teel leen a faj ndax euh, dina tax lu bëree bëri mën na leen a wàññi